asalaamaaleykum am askan wi yéen ñi ne yéen ñi dee topp fii rek Gambian Talents TV man la seen xaalis seen doom yi ne Mariam Cissé moo ñëw ak suma doom bu ñaaw bi macha allah di ah, Adama Diatta su gisee nag ma ne bi ko soo xam ne nag Paul mooy ah, buuri joolaa te nag moom laa fi nag seen ah, Beyond the Line buñ leen dee indi fii si biir kër bi yéen xam ngeen ne waa Gambian Talents TV foo leen foo leen ñu ore ñu indi leen to politics to entertainment foo leen maanaam éduquer li nga xamante ne mooy young people suñu morom yi ak ñi nga xamante ne ñoo fi nekk ñu ndaw te xamuñ nag naka lañ dee use lii xamante ne mooy technology and then tey our topic uh, suñu topic of discussion nag mooy lan young people with technology su waxee young people with ah, technology ne xool dina màcc ñi ah, xel dina amàcc ñëpp dinañ xalaat ne waaw young people with su ñu lépp li xamante ne mooy si wàllu maanaam computer lii di laptop lii di ah, Facebook lii di si social media bi tey nag loolu la ñu discuss ma def dara nag loolu bismillah bu ñaawul bi nag di Adama Jaite mu tax mu nuyoo mu nuyoo ak yéen nag Adama. asalaamaaleykum mbokk yi ñu ñëw seetaan maa ngi di leen sant. si seen toppee yoo leen ñoo toppee si Gambian Talents TV man seen xarit seen doomi ndey di Adama Jaata ma bàyyee Mariam mu ɗone saya ɓen ɗo buga mu yaru na muna fi mabay mariamu hana woni mo saya mariamu no ne ka suma <laughs> na jola ñoo ne ka ba na dina leer haral beñ pare programme ñu defante bem sa ah. ok am askan wi comme ni ma ko doon waxee ne may ma nuyu suma mbokki haal plat dañu ñu na huusi biir programme bi o jaarama musidɓe am fulɓe mi ruttanima on ɗo no min a ɓiɗɗo moɗo mariam sisé noon hannde noon ko min andanel ɗo woni o amen programme ɓe wiyta beyond the line ananta am staff ji wondi ɗo fof gammintelen stivi ɓeɗe o programme haale noon topic amen ngayon ko young people with technology so maybe young people with technology yimɓe fof miijoto a ah, ɗum ko anndanta ko ɗum woni o social media ɗum ko andanta ɗum woni ɗi laptop ɗi ɗi mobile ji joni kala cukalel ngel yiɗa ah, no fanɗi no fanɗi ah, kala ko no fanɗirɗa ko 7 years 6 years a yiya yimɓe no ƴettano a okka ɓiɓɓe maɓɓe mobile mobile noon um, comme um, no english haalita ɗum ni um, whatever um, uh, no heɓi um, disadvantage and advantages te noon min ko wata on o kala ko anndanta aɗa heɓi ɗum make good use of it eyyi eh, fonno mi haalda e musidɓan jufmi arano mi halna on hannde ko hanndum mi anndani on ɗo yo wulnandu yo sumboki jorare legui ah. añu eɓe programme ɓe assalamu Assalamualaikum, kandi ka jamtenoora tigi am mbiyam talim tv boleh nde sapu sapu man regu apa bajum maka feti jaar ah, yang yankonde rege ah, yankonde rege young people young, young, young people with technology technology babaj sembay babaj place no man mi yeken jayo pangole ne na fay babaj place no man mi yeken jayo pene pene kasare yo baraka pene kasare yo wana ko la je tak mo ne ko pene kasare adam lo moy lolu dina la yaaxa dina la yaaxa ah. jërëjëf Adama nag mu wax loolu ah, lu am solo nag comme nag askan wi nag loolu ah, Adama Jaiteh naka Adama Jatta na nag lu am solo si biir programme bi Adama ñëpp xam nañ bu ndaw yaa ngi dem nursery school sax laay a wax nii inde ñu gis gay di jox seen doom yi li ne mooy mobile wala nga gis xale bu ndaw ko xamante ne mu ngi yës primary school mu ngi waaw loolu bonut Adama loolu bonut waaye nag dafaa yaaxa am na yoo xam ne dina la jàppale am na yoo xam ne tam dina la dina la si lor te dañ si war a bàyyi suñ xel bu baax a baax a baax naka lañ war a joxee suñ doom yi ay laptop ak ay mobile loolu dañ si war a bàyyi suñ xel waaw man nag Adama man dama ne comme ah, pour xale bu ndaw mu am li nga xamante ne mooy ah, laptop wala mobile or whatsoever li nga xamante ne gadgets yi nga xamante ko di use pour just to am um, gain or to am waaye nag mun na nga seet waaw loolu ah loolu man ah weddiwuma ko waaye di issue is am léegi comme nit yi la comme naka xale yi. waaw nuñ ko dee usee moo nekk am ah, problème bi for example Adama is very important because man like Adama nekk di xel man ah suma problème dama teel am téléphone tey bu comme simple phone si. waaw ah, dama teel a am téléphone but simple phone laa daan use but ah, gis nga su ma dee mu tee school assignment buñ am dañ ma ko dee mun a seen léegi comme balaa maa ne ma ko mun a def yëpp ma xam ne lii ak lii la mun a am tey léeg-léeg la ñu mën a am it understand nga so waaye léegi nag comme depuis euh, after ñu start di grow whatsapp bi génn facebook bi ak yu noonu léegi koo gis mu ngi use lii nga xamante ne mooy ah, social media understand nga dañ lay gis xale bu ndaw euh, dem si classe yow sa papa wala sa yaay mun na jox loolu waaye moom mbébétam mooy pour yow nga jël technologie boobu noonu nga make good use of it maanaam nga jàng si nga mun si njëriñoo waaye duñ def doolu dañoo def si biir classe bi teacher bi dina nekk di teach teacher bi sol tubéy bu rompul wala tubéy bu buna ñu nataal ak yooyu noonu di keepalaate wala nekk na di chat di text di exante i message xam nga like di textante seen friends yi xam nga yaa ma a xam wala tamit ñu nekk tamit def naka su dul noonu fii gis nañ fi um, lii nga xamante ne moom moo fi xewoon mooy uh, mooy uh, Gambia High student boobu noonu bu ngay amee woon programme ku ko dem vidéo loolu yëpp in a part of li because yaa ngi am sa phone da nga war a def fa lu a waaye xoolal xale boobu noonu luñ jël day jël dem vidéo xale boobu noonu dem seen ko li nga xamante mooy social media bi léegi loolu dem am viral li nga xamante ne loolu mu nekkoon li métti nag am askan wi te xam naa kooku parents yi sax suñ ko gisee lay dina am loo xamante ne métti nañ ko si loolu noonu ñu war a a bàyyi xel seen lu demee noonu loolu dëgg la lu daw yaram la parce que loolu noonu soo xasee ba jéem a du mos a a di duñ ko mos a mun a defaraat loolu dafa tax xale boobu noonu kaariyam dafa yaaku moom nuñ ko mun a comme suñ ko téyewaanoon comme suñ ko téyewoon ku baax sax duñ ko mun a téyewaat ku baax man nag seetaanuma ko nag waaye noo comme noo ko wayee loolu noonu dafa daw yaram bu baax te du loolu noonu rek ak yeneen ak yeneen gis nañ fi yeneen célébrité yoo xamante ne dañ leen damage si lan social media bi maanaam technologie bi technologie bi lu mu fi def def na fi loo xamante ne macha la lu baax rek adama time boobu noonu ama dama di dégg comme suma yaay di explain comme time boobu noonu suñ parents yu xamante ne dañ tukki ñu ngi Europe balaa nga dee wax comme leeta nga li bi na waaye balaa leeta bi day egsi dina fi dina dee am ay ay six months ay three months waaw waaye léegi alhamdulilah alhamdulilah léegi dangaa toog rek nga voice nit kii sa comme noo ko dee defee dee dee video call ba nu ma dee tooñee rek <laughs> kay yaa ko daal léegi damaa gis koo xam ne sa dafa am problème sax mu nekk si school mu call périm sax mi mu ne leen man maa maa ngi amee fii problème mbaa nga am yàlla tere tere di ko dëj am ñu kool la ñu ne la dëj am na yeneen saa amoon na jamono boo xam ne dëj dafa am sa one month one year borom du ko lii. Ah. waaw noonu la fa daan demee waaye gis nga léegi yëpp ah, lan moo ko génne mooy technologie di mun ngaa jël sa phone nga whatsapp ki nga xamante ne mu ngi foofu noonu ida en Twitter ak yeneen ak yeneen nga waxaa moom comme nañ xool rek comme TRRC bu nekk dem ne moo waxee ne askan wi bu leen wax ne dama dama spécialisé ci TRRC bi moo tax ma de non du loolu ah. soo moo ko gis nga léegi dafa am ñoo si TRRC bi turu lan technology because of through am um, uh, Skype la gars yi call ba ñu mun a wax su doon ne yàlla dafa def ne loolu amutoon foogoon na ne loolu dina bu because ñoo tam foog ñu dog seen ticket wala su dee mënuñoo ñu dañ koo bàyyi waaye seen testimony because lu amal solo fii la mm. ba duñ ko doon mun a am su nekkutoon ne technology moom moo fi nekk si man Adama fii am um, loo fi gis dafa am disadvantage ak advantage Adama dangaa xool rek li nga xamante ne mooy lekka exemple bu gën a li gaata mooy lekka dafa am na yife nga am leega comme ñu indi la xam nga joolay rek ak a leega bool benn fees te bool yaa daa xamun a lekka <laughs> bool benn fees te ak maalo dafa am nooy lekkee waaw da dangaa disturb soo lekkee ak xel like am benn problème soo man fii loo fi gis ndox sax soo ko ëppalee dangaa am si man lu nekk soo ko uh, overuse daf laa mun a disturb waaye dafa am uh, fii loo fi mun a gis nag am na advantage ak disadvantage autorité yi may ñaax nag ñi nga xamante ne nag mooy suma ah, suñu morom yi maanaam suñu ah, ah, suñu maas yi nga xam ne ñooñu leen di seetaan fii si suñ kër bi Gambian Talents TV ñu leen di ñaax rek comme let of let us make good use of this social media let us make good use of this am um, technology xam nañ ne it is helping us mu ñu dimbale in educations and and a lot of things because fii Adama dangaa mën a am sa assignment léegi fekkoon mooy nekk dem si UTG bi group chat ngeen day am everything foofu lañ leen ko day mën a seen tey ngaa toog ba bugg a ñëw fay paas fekkee maa yaa ngi dëkk fi ba Costoru wala Brikama wala feneen nga war a ñëw dem fii ba Kanifing am si UTG bi ba déedéet dañ laa seen a notification rek mooy message yi si seen groupe chat bi ñu leen say à lecture bi du ñëw wala nii ak bi nga nga leen dañ ko daan am comme waaw nga ñëw nga denc loolu noonu fii because ñun sa Gambian Talents fii yenn saa dañoo toog nii rek doo comme dara xew rek si dangaa gis Fatou Sama mu kool la mu ne ne eh, e Mariam wala keneen Adama waaw mu texte la nii ak nii ak loolu yëpp comme mu ngi indi jaama waaye mu ngi communication make it easy waaw mu ngi make ah, communication easier oh easier sax ah mu ngi gën a yombal li nga xamante mooy ak wàllu communication xam nga léegi Adam bay ma waxaa suma mbokki am Haalpulaar rek nga nuyu suma mbo sa mbokki suma doom yi xam nga bala ñu mer déedéet kay man ñoom ñoo nekk seen buur ñoom ñoo seen <laughs> ama ah, musiɓe ko wonnoɗo kon haala kulle ɗum ko anndanta ko happari no yimɓe fof no anndi ɗum ko nanta ko woni mobile ji no bonnata nde saare jooni sukaɓe fof kala moe waɗi addict to téléphone par exemple am an mobile ma so yakkimama ɗo tahande a wawata a haldude haygoto a hakke ko loɓata ɓay a waɗi a wowi ɗum ko wiyete mobile mobile nan no waɗi ko annanta woni important yimɓe no annduno on wattu am gila mamiraɓe meɗen wonnoɗo on taya mobile ala hayso goɗɗo yeehi amérique walla yeehi ɗo saare wonde ɗo a heɓude mo pour a halnamo goɗɗum heewi ka ɓawa makko ko probléme wonta ɓay ko lettre tan ɓettere ɓe windanama te on lettre ɗo a hendade on lettre wonay am duuɓi duuɓi duuɓi ɗo a heɓde on lettre joni noon am allah walli en joni eɗen eh, eɗen heeɓa notification ji walla information ji sohlu ene foof trou technologie joni kala ko heɓɗa noon waɗe make good use of it accen ko watten mis use ɗum ko andanta woni technologie adama tasuma yi suñu mbokk yi maa leen di wax ni technologie bi dañ si war a bàyyi suñu xel bu baax a baax a baax naka lañ si war a jëmee ak naka lañ si war a doxee comme comme ça soo amee technologie naka ngay demee moom di nga nga nekk si dëkka mun na laa yaaxal mun na laa indil loo xam ne dina la njëriñ xale yu ndaw yi day use technologie bi te xamuñ naka lañ ko day use dañ leen di ñaax rek ñu ñu yi bu ba pare Adama gis naa disadvantage of technology suñ ko naree wax fii la ñoo fanaan. waaw gis nga advantage am tam suñ ko naree wax. ñu fi jógee. waaw because am um, Adama lii nga xamante ne mooy technologie dafa am sa yenn demee yoo xam ne daf koy def si nit comme yenn saa yi dangaa nekk di nëbbatu sa yaay comme bëgguloo sa yaay xam ne yaa ngi amee téléphone dangaa jël phone bi nga def ko vibré nga vibré mu def mu nekk une vibration nga def ko si sa. sa bodays bi te loolu daf dee joxe lii nga xamante ne mooy understand which is um, very abnormal te nit yi ñu bëri xamuñ ko waaw ñu bëri tamit xamuñ ko xamuñ technology def dee mën a def loolu noonu because loolu am um, courant la di moom mu ngeen di vibrate in your breast is not good te jigéen ñi comme ñun breast cancer nu mu ñu yombee ak how serious it is because amoon na time fi mooy balaa wol ak uh, cancer day bi xam nga gisoon nañ ji jànq yi nga xamante xale yu ndaw loolu nga xamante ne comme mostly waxuma xaalis du ko dee def tam comme xaalis yoo fa dee def wala di ñun um, daf ko dee def understand su loolu dañ ko war a oytu ba pare wax téléphone bu uppa bi am jël sa téléphone plug ko mu ngi am loo batterie nga plug ko ba still yaa ngi am yéena am lijjanti yoo war a def comme nekk si di message ak sa xarit yi nga plog ko nga am ko la nga def ko sa nopp bi it's not si ah, li nga xamante ne mooy sa dund it's not safe which is tamit li nga xamante ne comme overuse nga jël ko rek teg ko fii suma maa si teg teg teg teg teg sa bët yi nga tine tamit nga war a nelaw depuis suba yaa si technologie jóge yaa ngi si laptop bi feneen ak feneen. mun na laa affect sax. si sa nga jógee foofu noonu nag nga dem tamit tëdda uh, nga def looy def nga ñëw tëdda tamit doo nelaw yaa si phone bi di mm. text di def status ak yoon suma maas yi xam nga ko luñ ma reewee CEO of status. <laughs> comme noonu understand nga which is tamit comme soo xoolee am dëgg la dañ si dee mun a jàng ba tamit comme loraange bi tamit dafa bëri maa ngi ñaan nag suñu ah, mbokk yi nag suñ ñëpp ñu ñi nga xamante ñu ñu seetaan nag fii Gambian Talents ñii nag lañ leen indiloon nag te dinañ gën a xuus si bi te ñu leen di wax rek ngeen bàyyi xel si li nga xamante ne mooy mobile loolu fi def bëri na man maa ngi am benn anti ah mu ne moom du mu sattiyee téléphone ko joxee téléphone ah ko dee jël mu mu mayee ko mu ne because fii sëy bu fi baax fuul la waaye sëy bu ma yow de am problème ma ne tam and which di nga gis am na daf ma ne am na advantages am na disadvantages di nga gis foofu di nga si amee mun nga see jaar am si jëkkër mun nga see jaar am sa sëy loolu yëpp gis nañ ko fii mm-hmm. comme noo ko waxee waaw ba pare nag léegi ñu ñëw si li nga xamante mooy social media bi li nga xamante ne comme ñu xale yi day xamante ne dañ day mën a join di use a Facebook am WhatsApp ak seen chat yooyu noonu understand nga ba dañ ko dee use waaye uh, still am um, xamuñ tamit si man dama day jàppane xamuñ the value of lu tax ñu nekk di use loolu aadama because dañ dee mën a gis um, yenn xale Ah, comme because xam nañ ne comme nit yu weex yi bëgguma wax sax comme nit yu weex yi dañ leen nekk di def yenn vidéo yoo xamante ne mooy loolu. waaw dañ koo gis ñu seetaan ko jànge si lu bëri. xam nga ah. am adop si jikko bi nga xamante ne mooy loolu. mooy loolu àndul ak suñu aada wala suñu cosaan wala méngeewul sax li nga xamante ne ñun loolu lañ xam ak loolu lañ ñu yaree. understand nga te tamit ah, danga war a seetlu de Adama yenn sax nga gis am Facebook sagatuma ñeena yi dama dee mer sa Adama nga gis nit vidéo boo gis nga share. te xamuloo loo chia def dañoo si sa wool bi te su ñëwee si sa wool bi tamit ku nekk soo dafa ne kii chia na lii ban loolu mus na maa dal. dafa suma benn dafa nekk di chia chia chia ba loo xamante ne comme baaxul comme mooy yu gars yi def mooy yooyu noonu. yu naste yooyu noonu. understand soo mu chia loolu ma dem ma clique loolu ma gis ma ne ko ne yow gis na loo chia mu ko koo mënu koo génne addi dafa am kanam ko waaye balaa loolu def nga xam ñaata nit ñoo gis. ñoo ko gis nekkul loo gis Facebook nga chia ah, soo fa duggee. dégg la it's okay and it is very normal dina la dee mm. jàngal lu waaw pour nga use yooyu noonu dina la dee jàngal waaye tam moo war a bàyyi si loolu loo gis rek nga nga comment wala loo gis rek nga like man yére yi ñëw fi comme vidéo man man like li pour ma jël vidéo yi nga xamante ne comme nekkul Gambia nekkul comme Sénégal yeneen vidéo yi ni ma ma ma wala ma like du ma dee share ma like because um, nit yi nu ñoo scroll mën nañoo gis ñu ne xëy kii vidéo bi la fekk yow da gis vidéo bi sax lan lan lañ fa bind nga dem nga click loolu noonu nga dem like fekk nga Adama am pour sànni si loolu noonu waxalaat suma mbokki joolaay eh, ma ne yow mooy loolu waaw léegi dinañ man moom dinaa si olof mm. war a bàyyi suñu comme la Facebook bi lan nga si war a naka si war a duggee ak naka nga si war a jéene parce que soo si duggee ba pare doo xam naka nga naka nga si jéene dugal nga nga nga gis picture boo xam ne yow sa xamuloo boppa bee génn nga click foofu noonu nga dem mu nekk si sa page bi ñëpp gis sa awra maa ñëpp di xamal la xam nga loolu noonu rafetul. ba pare Adama loolu tamit nag daf mu maa li nga xamante ne mooy xale ñoom leen sant. sol gis nga Facebook Adama si man. waaw nekkut loo sol rek. nga def ko Facebook su dee in your status like it's normal because status bi uh, one can uh, understand comme def soo ko fa defee 24 hours su ñëwee def dee def dee expire understand loolu it's even boobu na sax danga am pour oytu because su dee yaa ngi am yenn kilifa yoo xam ne ndéem nga sa status bi danga am pour bàyyi xel si loolu but ñu ñëw si li nga xamante ne mooy Facebook Adama da nga gis nit ak ah, mu ngi nit yaa ngi ko respect and with all that respect borom lu mu def nekkul loo mun ti def rek nga dem def ko si ah, social media bi dafa benn scénario bu ma suma oncle di explainal ah, te after dama find am ne is a true story mooy loolu dañ ko share woon sa Facebook mooy kër bi nga xamante ne like ñoom dëkk dafa benn xaka mooy xaka si dafa benn xaka bu leen doon trap understand nga so boobu bu ne noon trap léegi am um, ñooñu si kër bi yëpp dafa aat gars yi ñoom ñu accept ko so they are friends on Facebook. understand so bu ngay nekkee friends nag léegi si suba si ñu ne papa mu pose xam nga from going to work xam nga at work something like that ah. uh, beneen jigéen bi tamit. pose benn xale bu fa desoon comme ñu ne sista la rek ak booy bi ñoom tamit gars yi xam nga ñëpp pose nañ te xam ne ne nataal bi léegi léegi lañ ko def kenn nekku si kër bi kooku noonu la demee daaji kër bi Sadio Deme moo Sadio Deme after si dañ ñëw nag ñu téye Sadio Deme bi waaye buñ ko téye buñ ko laajtee lu mu wax loolu la leen mu évidence boobu la leen moom mu ne leen ne dama dama lay over follow ñi te dama gis ne ñoom yëpp de out xam naa ne kenn nekku foofu moo tax ma def loolu xoolal loolu noonu rek ah, yi su ma caméraman sa joolaa la waaye joolaa yi moom randal lañ nga ñu ne Pël yaa de Pël rek a si ay ñu ne Pël yaa de wax dëgg ko fa so depuis ko ko mu doon explain loolu noonu like afta si bari ma rëy ma ne waaye ki dafa muus de waaye afta si bu ma man very ria ma poos na moo tax kër tam warta wéet yeneen façon yi wéetaange ba nga xam li nga war a pose sa sa sa. Eh, sa sa privacy after keneen jéem a si ñëw jël lu moo jël dem ak moom. loolu ñeneen ma ne la suñu naan tii sax. checking coffee. waaw ma ne ko waaye suma mbokki joola nañ bàyyi ak ma séeréer yi ak sama mbokku ndaa yi nañ bàyyi loolu noonu lu ñoo mënti def from this to that from this to that ma yéen sax dama dee mer dama dee ne waaye yéen moom ñeneen dañ bugg a fi Facebook torop te xam nañ ne nag Adama mobile like ah, baax lu ñu fi dee def Adama. waxoon nañ loolu waaye dañ siy delluwaat rek lii nga xamante ne yéen a say assignment yi ñu la jox. soo demutee google pour nga find out the answer it will be very difficult def dee métti soo demee si google bi rek nga saaj tap tap yu kii nii ban comédien dafa benn comédien bu dee wax loolu noonu xaw ma second daanaan la tudda mu ne mu ne moom mu ne moom mu ne caa yéen yéen a mën a wax lu leen ne ma ne ko yow lan moo xew mu ne ma ne mu ne dafa am ñoo xamante dañ leen ne góogul loo góogul dafa dee indi moom dafa meew cere meew ñëw moom loolu la nama <laughs> mooy loolu ma ne ko xaay am na ma kii moom séeréer la mun a mu ne góogul naa cere meew ba soxna ñëwul ma góogul cere ñee ñëwul soo la <laughs> ma ne ko am na nga ñu ngay waxal nag mbokki joolaay dañ ne góogul loo góogul dafa ñëw waaye waxuñu lekka de su dee lekk sax yu kan nga gis photo si ne soo ko góogulee dafa ñëw ko pour muy leer <laughs> <laughs> understand nga so adama loolu na mu nekk li nga xamante ne ah, am naa solo te foog naa ne nag ak ah, ñi nga xamante ne ñoo ñu nekk di seetaan di nañ si jàngatee waaye comme que yow nga ne dégguloo lii nga xamante ne mooy joolaa te joolaa nga man nag man maa di praat fulaani diva bay rek ma wax suma mbokki xaal pulaani woon na ne ne adama tey may dominer fii man naa xale faat saa waa xaa jooni a ah, musid bi comme woon nooy xaade doo xaa jooni me de xaala kulle ɗum ko andantaa woni technologie comme woon noo ɗoy sumtude nen ko ɗum woni a sukaay bi andantaa ɓe ƴetta vidéo ji anndanta moƴƴani ɓe ƴetta an ɓe waɗa ɗi post ɗum ko woni facebook ɓe ƴetta anndanta a goɗɗo waɗa vidéo mo anndanta ko gorko e debbo won toon walla ko anndanta an mi waɗani mango ko ɗum ko anndanta ko ɗum woni ene am askal meɗe walla aada e cosan meɗe ɓe ƴetta ɓe waɗa ɗum chia walla ɓe waɗa ɗum like walla kadi yeeɗe ɗo cukalel ƴetta mobile makko mo suuɗamo pour yiɗa nene makko walla ba makko annda mo jogui mobile ƴetta mobile ɗum waɗamo ko ɗum ko woni ka indi makko walla ka bonise makko ɗum noon ko okkirta anndanta cancer te cancer ko woni a ñaw anndanta mo waɗ ɗigaraw to on ñawso ari ko matum ɓeteje endu mami te neɗɗo noon a sakantuma debbo sa ala endu wotoro ɗum waɗama distop no wawi kadi a maita kono no wawi kadi ɗum ko woni a hinere maɗa a heddo e ɗum jonno mine hanna noon ko andata jama ono wonmine jokkude e ndare ɗo gambie talen stevi mine hanna no a yimɓe yo a accit hakkil ɗum ko andanta ɗum woni technologie comme a damage ɗiɓe watta ɗen ɗo ko andanta ko ɗum woni e aduna on joni ha pari no yimɓe fof no andi kadi technologie no walla ɓay joni a ah, for exemple en cas student of the university of the gambi o wiya so eva comme woto wodɗa yaade kono kala ko sohluɗa sa waɗi google tan addanema heddi ñamede konko monnoɗo e hande sekandanan ko wiyano ko google na cere mew ñowd ak yoyu noonu ɗum ɗon ah, yimɓe haalandu ɓay andi sereji ɗin e joolaji ɗin ko ñamugol tumɓe e <laughs> ɗum woni haaji kono ko kono noon an kala ko annata ɗo sori ɗum pour a clé information walla notification sa waɗi ɗum google am ah, a ah, heɓay ɗum ko anndanta ɗum woni clé information mo sohluɗa ɗon ana wona balanga lima yo kasi li nga man suma on experience so pare tanga wasa on experience loo xamante ko jàngee si technology bi gis nga man may remembe so remember um, second uh, second day ni second march maa ngi amoon event dafa am na bu a host évidemment li nekk di train loolu noonu Adama musuma host event musuma xam naka lañ dee defee loolu waaye Adama uh, with uh, the help of um, technology la gaada some yi nga xamante ne ay su ma ko defee dina uh, programme bu dina nekk am um, a successful one dama dee ñëw su ma ñëwee fii ma def lu ma war a def ba pare dama dee wax Fatou eh, Sama leen ndax mun naa use li pour ma research mu ne ma waa baax na dama dee research li nga xamante ne mooy naka lañ dee MC yeeg and everything yow benn bés sax musuma dem ma ne maa ngi rehearse pour suma programme bi Adama but see with the help of technology dama dee research li ma bugg a yëpp laa am dama dee topp ay different different different event hosters te ma dem gis nga bu ma demee lii dafa ñoo xamante ne su ma si jas nañ dañ ma dee ñu ne ma yow yoo xam naa léegi moom li nga nekk di jàng mooy li ma nga ne mooy lii but dama nekk di ko google rek wala di ko seetaan moo tax ma mun lii understand nga so yu bëree bëree bëri dañ ko dee mën a jàng about xam ne présenté wala aha loolu dama dee nekk di maa ngi nekk di binda di binda di binda kenn trainut ma te ma demee programme boobu alhamdulilah man nag dew ma turu loolu noonu waaye nag jàngal na ma tam lu bëree bëri gis naa si advantages yoo xam ne dimbale na ma ñu baree baree baree bare waaw nag waaye nag mosuma dem turuloo waaw waaw jërëjëf ah, kon nag am ah, suma joolaat na mu wax nag digga mu ne mu bugutal li dingal mu ne si digga bi ci suma xarit bi Adama waaw léegi nag Adama dafa bi mu ngi ñëw jeex waaye léegi nag ah, dañoo nekk di summarize rek in a short notes wala in a short rek ñu ñëw nag am tàggatoo waaye balaa loolu nag ñu ñu gën a mën a lii ni expérience nit yi ñu wala ñu fàtte ñi nga xam ne ñoo just tune in am di seetaan fii Gambian Talents TV seen Beyond the Line la woon te tey lu ñu leen indil mooy uh, young people with technology su waxee young people with technology yëpp xam ngeen fan la nekk di waxee nag te luñ fi doon waxaat mooy ah, li nga xamante ne mooy disadvantage mooy breast cancer bu dee joxe li nga xamante ne mooy ay ah, problème bu dee joxe ak li nga xamante ne daf la dee mën a frustrate sa sometimes dangaa nekk to your foon sa foon bi jékki-jékki na rot wala mu dugga si ndox Adama dangaa am stress waaw waxuñ ne buñ ko use waaw nañ ko use torop nañ ko use because dafa over baax like def ñu dee mën a dimbale for example, ma yenn saa maa ñëw liggéey suma parents yi call ma ak yooyu noonu through technology xam nga daf dee make a communication easier but the issue is tamit nee leen a ah, make good use of it nañ ah, fàtte beneen part bi nga xamante daf ko dee nekk di def pour di yaaxal li nga xamante ne mooy young people ñun nag ah, we the young people of today am um, we are the am um, leaders of tomorrow and then yes moom na ko suma benn teacher day waxee we are the doctors that are going to am um, teach our um, learning, our young people tomorrow. And definitely what I mean, we the young people of today, we are the mothers and the fathers and the aunties, the uh, of uh, next generations. Legi na ñu wara make good use of li nga xamante loolu la nekkal de ba pare adama li nga mooy reputations dafa over important because if you love def ñu def ko ci social media bi sa set sa set seet ñëw gis ko te doo si mun la doo si mun dara because luñ ko def def nañ ko ba pare waloy wax ak tanu tàggatoo dëgga la comme noko waxe waxee rafet na man maa ngi si bég lu kontaan si lool ndax nah, mi social media bi dega dega dega dega xale yi nuñ ko nekka di doxale nekkul nu wari comme xale ya yaaxan am na ñum ci ya am na ñum ci defar te ñum ci ñum ñum gëna ya yaaxan ñu mo upa ñum defar wa kon nag comme ni koy gayé waxé gis nga Adama defar sa bopa dafa baax nekk xale taxul ne nga ne yow lu la neex nga def comme as the saying goes it is not the plan that is important but it is the planning and it is very important pour nga plan yourself since ida am at your age since you were young understand but bul dee nekk xale rek di def li nga xamante ne mooy naka su dul noonu di sol li nga xamante ne lu la neex di post Facebook di def lu nekk di share video yu nekk technology mooy di mouthpiece of in our generation ñu ngi xam ne loolu noonu but then let us make good use of it. Thank you so very much. am maw hasuma mboki halpourade mi wittaga to a musiɓe ko ɗum noon mi addano on ɗo hannde kulle am technologie on nani noon min e o an a bandirawo debbo am adama diata komi addani on ɗo hannde noon kulle technologie e ko watta e o nanta ko jama o bonnay ɗum ko woni enɗi bonnay ɗum ko nanta guite bonnay ɗum ko andanta ɗum woni repetition maɗa on sa sa waɗani noon am best use of ɗum ko woni technologie adama filofigis a bahna amna lo lohamantene bahna simo amna lohamantene a bonna si sonan nanentra rek rek am yéen mi ñu nekk di seetaan xam ne dina taamu ngeen Gambian Talents TV torop te luñ leen fi def na da ngeen si dee topp ñu leen di ñaax rek ngeen jël suñ programme bi ak sukkandimaa topic bu leen indil tey ngeen make good use of it man la woon seen xarit seen doomi de Mariam Ceesay di leen doon hostal tey seen Beyond the Line programme bi with my able co-host Adama Jatta tey nag our topic was um young people with technology thank you so very much jërë ngeen jëf thank you jërëjëf jëf ñu ñu doon seetaan toppee boo leen ñu doon toppee si Gambian Talents TV ñu ngi leen di gërëm di leen di sant si seen toogaay ba ngeen bàyyi seen soxla yi ñu toog di ñu seetaan jërëjëf jëf ah, ba léegi nag du mun mën a dem tànkuma suma ah, caamen bu baax bi nekk nag su gannaaw caméra bi Moussa Diatta nag mbokki Adama Diatta la moo tax luñ fi mu ngi nekk di smile ku Moussa jërëjëf thank you so much our able cameraman thank you